Lamine wi laa tudd. Kaolack laa jógee jeu bi daal moom yomb na yombul waaw affaire daal sens la rek. waaw loolu la ku joué daal mën nga su saa mhm. loolu la quoi. moom loolu moom mooy loolu ñun moom yàgg nañoo téye xaalis lii xaalis la du xaalis loolu la daal affaire daal ku joué daal di nga gagné saa bi daal mu ngi fi te loto du jeex. tant que ñu uh-huh. daal laa ca am lu may wax maa ngi xoolal na du kii daal affaire na ay ay naxe dëgg la gi ngeen chèque baa ngi nii affaire bu dëgg la ku joué di nga gagné waaw Lonase moom sa waay mooy loolu waaw ci kaw ci kanam rek waaw Assane Ndao yaa ngi soog a gagné ah du du parce que lan euh, da ngay rek sens la daal mm. affaire bi sens rek la mm. waaw suñu développement réew la mm. kon ñëpp war nañ di participer kon loolu moo ñu tax di joué nii euh, te mbir mi moom duy naxe daal ñu bari dañuy yaakaar ne ay nax li day gagné sax ñu ne ah kii gagné wu mais jeu la rek da ngay làmb fu ne rek des fois nga joué pari foot des fois nga joué PMI des fois nga joué loto sens la daal sens bu ñëwee rek. Mm. kon daal leen conseil ñëpp ñu daal di joué ci. waaw dañuy da ngay parce que li li li suñu président waxoon Léopold Sédar Senghor nee na. dugal ci baax na mais ëppal ci tamit liiw mais daanaka wax daal moom presque loolu moo doon moo doon moo doon atom mais sens la suñ développement réew la boo gañee ci réew mi nga koy delloowaat soo yee tamit ci réew mi nga koy delloowaat. duñ ci développé bu baax 25 millions. waaw mais gañe nañ ci lu nekk. du hmm. tey waaw du tey. bii bii ñaata nga joué du du xam ne kii la nii rek da ngay di pour gagner mais joué tamit plaisir bi da nga ko ciy am mais nag saa yoo boobu bu fekkee da nga perte du neex mais saa yoo gagné day neex. yow nga xam ne di gagné la lan nga yëg. ah nga war a yëg. loolu yëg leneen. Euh, Mamadou Gueye secrétaire général de la LONASE. euh, je voudrais, au nom du directeur général, après avoir remis les deux lots à nos heureux gagnants, euh, les féliciter et leur souhaiter un bon usage des, des lots qu'ils viennent de décrocher dans le cadre du Saint-Loto Jackpot. Euh, je rappelle que M. Ndaou a gagné 25 millions et Wilan a gagné millions. Donc c'est la énième fois qu'on revient sur ce plateau, sur cette tribune pour... Euh, attribuer des lots à l'occasion de, de, du tirage du Saint Loto Jackpot. Donc félicitations à ces heureux gagnants et je prie que le bon Dieu en ce jour de vendredi fasse en sorte qu'ils investissent au mieux de leur famille et ces sommes euh, qu'ils ont gagnées. Alors par ailleurs également, c'est l'occasion pour nous euh, d'annoncer euh, Euh, le lancement prochain de, du numéro porte-bonheur, qui est un jeu de grattage instantané. Et après avoir sevré le marché depuis quelques mois, euh, la stratégie qu'on a préparée jusque-là consistait à, à, lancer un nouveau produit euh, accessible, parce que la mise de base est fixée à 100 francs. Et ce jeu également va offrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses de gains. Donc nous invitons tous nos parieurs à adhérer à ces jeux et nous savons qu'ils ne seront pas mécontents d'avoir euh, fait le choix d'accompagner la Lonase euh, dans ce nouveau produit qui est le numéro porte-bonheur. Par ailleurs également, toujours dans ce mois de juillet, nous prévoyons de lancer dans le cadre de l'élargissement euh, du loto, un nouveau jeu également qui est le 590, qui est un jeu à, à code du loto, dans la famille du loto, mais qui aussi, aussi va offrir beaucoup, beaucoup de de gains avec des tirages euh, assez fréquents. Et nous donc que nos aussi euh, vont être très parce qu'ils sont placés au cœur de notre stratégie et c'est notre raison d'être. Très bien.